الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني fii ci kër sëñ Cheikhouna moom sëñ Fallou ci wàccaayu màggalug sëñ Fallou gi nga xam ne ci lañ nekk fas yéene ko ànd ak mbokki murit yëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf borom Touba askay borom Touba ci borom Touba borom Touba moromantewul ñoo ngi fii ci kër sëñ Cheikhouna Mbacke moom sëñ Fallou ci waañ wi nga xam ne foofu la ñuy liggéeyee bernde yi nga xam ne moom la ñu murit yi fas yéene xéewloo tey biñ ñëwee ñu ngi fi fekk jëwriñ ji nga xam ne mooy njiitu jëwriñ yi Euh, bu góor gi sëñ Fallou Dia euh, ak soxna soo xam ne mooy soxna Fatou Touré ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax di leen fàttali suñ dopp di leen fàttali ko ci bés bi ak euh, programme waañ wi ak nan la waañ wi di doxe rek daayira rek yi nga xam ne ñoo daje ci biir waañ wi ak pas-pas yeeg positif gi nga xam ne moom lañ fas yéene ànd ak waañ wi ak liggéey fi sëñ bi soxna si tey boo ñu bëggoon a indil kàddu yooyu ci waañ wi ak liggéey waañ wi lan nga ñuy ci leeral maa ngi leen di siyaar di leen sant si bis bi di rafetlu bis bi macha daal man daal bis bi li ma ko gisee macha allah bis sëñ la daal ku waay liggéey sa bopp. bis bi nag waañ baa ngi ni jigéen ñi macha jigéen ñi liggéey nañ añ yi teel nañ xéwal yi baax nañ lépp daal xéwal la suñ góor yi itam jiitaluñu di ñu faxastalu di leen ñaanal suñ góor yi suñ borom kër yi. ñu doon milliardaire sëñ Fallou yàlla ñu doon ba toog ba ñu doon milliardaire sëñ Fallou dañ leen di ñaanal man nag wax ji moom dama koy gàttal jox naa ko soxna Ndeye Gone maa ngi sant sama morom jigéen ñi bu baax a baax. acca Ndeye Gone kon bu boobaa ñu ànd ak ki nga xam ne mooy soxna soxna Ndeye Gone ba léegi tamit yéen a ngi ànd ak ci seekalu murit yi Saxum Touba soxna Ndeye Gone ñu lay si waaw ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen sant di leen ñaanal yéen ñi di ñaanal sëriñ Cheikhouna mi nga xamante ni moom la ñu nekkal yàlla bàyyi ko fi lool mu gudd fan lool te su baayam bi fan ci barke yonent bi ñu koy sant nag di sant jigéen ñi ci kër gi sant soxna yi di sant sunu ñii nu àndal si daayira bi ndax nag sëriñ Cheikhouna mii sama sëriñ Alaaji Njaay xam naa ne bu nee jiitu na ci ku jëkk a si moom bu si tegee keneen bariwul te boobaak tey nag bàyyiwuñ ko benn yoon ñii nga xamante ne ñoom noo ko ci fekkit bàyyiwuñ ko benn yoon teg nu seen kanam nag balaa noo def dara laaj ñu balaa noo wax dara laañ ñu te mënoonoo noo def seen def bopp ndax ku noppee màgg doon sama gum bopp waaye du ñu def dara te jiitu lu ñu si ñun jigéen ñi lu nu wax dan naan dem ne laaj jigéen ñi nu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla na ngeen dund ba seen i doom di ko def ba seen i sët di ko def di ko ànd nu comme nii nu ko àndee ñoom noo àndee ko noonu ci barke sëñ Fall mi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyal ñi nga xamante ne noo fi nekkoon daaw ta nekk nu fi ren yàlla na yàlla oyofal seen kaw yàlla yërëm leen yeexa leen nu eggalee seen ndaw ak alaaxira ñi fi nekk yalla nañ fi yàgg nekk nu yàgg feetal si barke yonent bi di sant ñëpp nag waaw di sant ñëpp bàyyiwuñu kenn xale mag ba xale ba ñëpp soppeek taalibeek ñëpp la ñu sant di leen gërëm yàlla na fi yàgg di tas si barke yonent bi barke sëñ Fàllu waaw soxna si ñoo ngi lay laaj ginnaaw bu fekkee daayira fi nekk tey boo ñu bëggoon a euh, leeral ci daayira yi ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci jiitu jigéen ñi euh, jëwriñ jigéen ñi comme jiiti daayira yi ñaata ñaata soxna lañ ci biir daara ah, maanaam si daayira sëñ Fall bi maanaam soxna fat fattare mi fa soxna Xadi may moo fi ne woon far yàlla def mu dem tukki mu jël soxna Xadi jum teg fi moom it mu def noonu comme moom ñu koy ñaanal moom it sëriñam bi fi jóge barki démb yal na ko yàlla yërëm te yeexal ko nag dégg nga yeexanu ñu di ko ñaanal ñu yàgg ci lool dégg nga ba fi ñoo jógee ñu jël fàttali mi teg ko sunu kanam deful dara nag te woowuma waxul lenn te woowuma daf may woo téléphone ni ma dégg nga lu ñuy def si daayira bi ni ma woo téléphone ma del def nii di def naa tane nag mënoon nañ koo jiital nag mu jël yi fi boppam nag teg ci kanam waaye du def dara te woowuma téléphone. du wax lenn te woo ma téléphone sëriñam bi naka noonu ñiir naka noonu bu guddi jotee bu nu paree nu jiitalu ñun ñëpp yóbbu nu këram na sangu ba set tëdd nelaw bu fajaree nu jël saa liggéeyal sëriñ Fallou rek moo nu indi incha allah di sant ñëpp nag di sant sama sama jëkkër yu ndaw yi nga xamante ne ñoom laa nekkal daay daayira ndax ñii fi nekk ñëpp ay rakki alaaji la ni ñuy ay doomam la nu jartata zone kon ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm barke ba léegi yéen a ngi ànd ak Saxum Touba di seetu murit yi euh, ñu ngi li nga xam ne mooy sëñ Fallou jëwriñu euh, góor ñi kon sëñ Fallou ñoo ngi lay ziar bu baax a baax te di la tuubal euh, Saxum Touba di seetu murit yi tey sëñ Fallou boo ñu a leeral ci waañ wi ak liggéeyu waañ wi ak góor ñi nga xam ne ñoo fa nekk ak ñi nga xam ne ñoom nga jiite ci wàllum waañ sëñ Fallou tey boo ñu bëggoon a indil ay kaddu ci waañ wi loo ñu ciy wax asalaamaaleykum bisimilah barke sëñ Cheikhouna mi ñu yaakaar di borom bis bi di sëñ Fallou Mbacke te ñun ñu doon ay taalibe murit eh, juddu ci màgg ci ànd ak ay jëwrin ànd ak ay doomu aadama yoo xam ne yu yu yu bàyyi xel lañ yu am pësteef ndax boo xoolee ñun daayira Touba yi ñi nga xam ne ñun ñoo ko jiite ay daayira daayira topp siñ ginnaaw lu mu toll ak juróom-ñaari daayira topp nañ ko mais jëwriñ yooya biñ ñëwee dañoo jël lépp bàyyi ñu ko topp siñ ginnaaw ñañ àndal sax dañ leen a jël jox ma leen. seen i jigéen ñi jël ko joxaat ko suñu jigéen nga xam ne niñ jiitee fii ci daayira bi ñoom dañoo jël lépp jox ñi topp ñu topp suñu ginnaaw nga xam ne amuñ benn jafe-jafe du problème mu ci góor ñi du problème ci jigéen ñi jigéen ñi neex nañoo jiital si macha allah parce que jigéen soo ko jiitalee xel ma gàttu rek am nga sans te wax dëgg yàlla ñi jiital dañoo jël ñëpp uuf leen parce que ndajeem jigéen xam nga ne su leen yàlla boolee ñoom ñëpp mënoo xam mag kon yàlla defal nañu tawféex te yàlla na yàlla lafal ñu cat te dimbali ñu ba mu li mu wax nii soxna si ñu doon ay milliardaire sëñ bamba ndax milliardaire sëñ bamba boo ko doonee rek da nga mën a liggéeyal sëñ bamba ndax euh, góor ñi koo ci gis lu mu tuut tuut rek fii benn baat moo fi am koo wax mu ne la jëwriñ jëwriñ jëwriñ ñëpp lañ def jëwriñ ñëpp ay jëwriñ ci wàññi ñëpp la mu daayira bi amul kii ñaa boo la doon wax da nga naan ah sëñ Pape Kébé jëwrin wala nga ne sëñ euh, sëriñ mi euh, jëwrin wala sëñ euh, Seydina Ousmane jëwrin maanaam baatub jëwrin bi moom dañ ko war a malante ba xam ne amul kii moo jiitu fii amul fii am na ñoo xam ne ñooy jëwriñ spécial yi sax boo leen doon dañ la koy delloo ñoom dañ la koy jilaat joxaat la baat bi màggalaat la kon daayira boobu dañuy ñaan mu màgg ñaan tout tànk yi ñi fi ne seen doole mutut yàlla defal leen ay tawféex ba ñëpp doo bokk ci milliardaires yi ay xéwal saawaan baawaan ndax ñi jógee Dakar jógee Mbour jógee Louga jógee Ngéejaan fenn fu ne waaye jógee fa kenn ku ne boo ñëwee la nga am da nga ko fi teg ba nga futteeku ànd ak ñun liggéey du jigéen du góor ju ñëw toog kon bu la yàlla wërsëgalee loolu te nga am kilifa gu mot kilifa muy suñ seexu na am suñ fàllu kon dañ cey sant yàlla ñun Kazu Rajab ñooy borom ñun ñooy borom Kazu Rajab ndax li tax ñi di woonam sant dañoo nekk ci buntu Kazu Rajab ndax ku kuy sa baay ñu ne sëñ Fallou kon yow yaa moom Kazu Rajab boo amee say taalibe keneen ku fu waay jóge rek donte taalibe sëñ bi la nga nekk Touba yaay jëwrinam loolu sant nañ ci yàlla te it ñoom it neex nañoo jiital neex nañoo jiital man mi at munoo fexe fexe fexe bala ñoo buñ sóoree dañ ne ma fuñ fu muy toll wan e, heure la ñuy sóor ma ah tee ñoo xaar ba une heure nangam wala midi nangam ñu doog a sóor buñ yekkee daan nama ma foo foo toll ñu séddale wala man a acca nañ ko séddale wala ma ñëw séddale ko loolu yàlla dimbale nit ginnaaw loolu suñu seex na maam jiita mbooloo dafa métti li jiita mbooloo jiitalu yoon li jiital euh, am xar jiitalut mbooloo ndax mbooloo yan saa nga jiita mbooloo ñii def nii ñii def nii bu boobaa yow nan ngay doxee sa diggante ak ñooñu waaw kay loolu moom ñi ma nekkal nii ñëpp yàlla dimbale na ci ki nga xam ne suñu borom dafa degal moo drapé dañ koy jëlaat taf ci suñ ginnaaw dañuy suul drapé boobu dañ ko xaw a xool toujours bu nit jàddee nga xam ne daa jàdd dañ koy fàtte duñ ko dañ koy ko loolu bokku ci de da naan ko loolu bokku ci rek dem sa yoon boo ne ko loolu bokku ci rek dem nga sa yoon moom après mooy xalaat loolu moom dootu ko defaat donte jigéen ñi sax boo buñ boo ci gisee jigéen mu ogu nii ab yéreem boo ko woowee ba mu ñëw nga ne ko bu ko ogaat ko ogaat kon loolu yàlla dimbali nañu ci ndax dañ lay wax ne la fii Touba la ba ñoom ñëpp nangu nañ ne fii Touba te ñi fi nekk ñii kenn ku ne da fi wut si lu baax kon ba ñëw ko lu lijjanti te it wax dëgg yàlla amit jàdd yoon sax bëriwul luñ ko fi def ñoom bëriwul ndax a parce que neex li tax pëccaxoo amut bañ àggoon tey di ñuluk soxna si newoon fii mooy ñuluk bu dee xorom kookaay ñu xorom kon kon jàdd gi du du kii koo ne foo koo ci woo fii amul kii la ma amul boo ne ko demal magasin ba jëli saako soble mu jël kii léegi ñoo ànd mu yenu saako soble ma yenu benn te mënoon na na mag laa waaye amul loolu fii maanaam nañoo jël yëf yi sëñ Tuubaa amul mag amul morom rek ànd ak moom liggéey bi moo ñu ñëpp góorgóorlu daal. naa ko loolu jàllee ndax euh, waañu comme nii mu tegaloo nii cin yi dafa am koo xam ne mooy jiite mooy nekk ci waañu cin lu ne mu dem taxaw fa wala kenn ku ne daa doon ci daayira bi kenn ku ne daa am euh, lu loo xam ne moom moo ko téel boppam wala daa am seen soxna soo xam ne suñ taaloon fukki mbar ak ñaar seen soxna soos mooy contrôler fukki mbar ñaar yëpp wala kenn ku ne daa am sa cinul bopp waaw comme buñ jëlee cin yi dañ koy partagé soxna yi waaye comme soxna facture mooy jëwriñ ji moo koy moo koy sédd moo koy xool organisation bi mooy xool nokkas bi ci war a dem mooy xool li ñuy soo euh, bu ñu nattee na euh, dix-huit kilos la ñuy sóor mooy xam lañ lañ ciy def ci diw moo koy joxe moo koy natt léegi su loolu paree nag bañ togg ko ba war a ba yekk ko nag man maa koy ki koy séddale buñ ko toggee ba yekk léegi maa yoraat kudd gi nag di ko séddale maay sédd daayira yëpp nag kenn ku ne mën na la indi say bool nga indi ma sédd la ba nga doyal boo ñu waxoo boo ñu bëggoon a limal foofu yi fii ñaata daayira ñoo fi teew yi nga xam ne ci biir dëkk bi ak yi nekk ci biir dëkk bi ndax waañu moom daanaka boo ko xoolee euh, daa li fi nekk ci ay daayira takku na waaw boo xoolee waañu li fi nekk ci daayira juróom-ñaari daayira ak ñun ñun juróom-ñetti daayira ñun ñoo dëkk ci dëkk bi ñi ci des ñëpp dañoo génn ñii Dakar ñii Thiès ñii Louga ñii mbuur mbuur boo xoolee ñetti daayira dana fi jóge nga ñëw Thiès noonu nga dem Dakar noonu te ñooñu ñëpp ci sëñ bi lañ jëm si am na ci ñoo xam ne sax duñ taalibe sëñ bi ay soppee sëñ bi lañ te li ngay joxe la ñuy joxe te buñ ñëwee dañuy mel nañ taalibe lañ loolu moom sant nañ ci yàlla ñun noonu sant nañ ci yàlla bu baax te di di ko rafetlu di ñaan suñu borom dimbali ñu gën ñoo sutural sutural mboolem jullit bu am aw fukkam di ko def ci liggéeyam sëñ bi yàlla def ko milliardaire barke sëñ Tuubaa kon sëñ Cheikhouna foofu la ñu fas yéene kàddu yi sëñ Fallou foofu la ñu fas yéene wàcce kàddu yi ndax waxtu yi daa mel mi ngi dox ginnaaw kàddu yi nga xam ne moom ngay jottali ak tàggoo ñu fas yéene ba waajalaat ko déwalante incha allah looy wax ñi nga xam ne loo leen di soññee sa diggante ñi nga xam ne ñoo nekk sa kanam ak seen pës-pës ak seen pësteef ngir ñu mën a gën a mën a jàjjuwaat ci liggéey bi maanaam de su nekkee ne wax dëgg yàlla waaw a tëj seen i place bàyyi am na ci ñoo xam ne nii ba mag dafee une semaine lañ tëj seen i place kon ñooñu waa góor rek nga mën a wax am na ci ñoo xam ne nii yàlla xam na ne fu ne nii booleen leen doon puus nii mun fi ñoo dem waaye jom la ñuy demee ñooñu waa góor rek nga mën a wax ndax ku bàyyi lépp ñëw toog fee di la raxasal bool di taal ay cin te doon góor kooku loo leen loo wax lu dul waa góor tooñ ko ndax ay jàmbaar lañ dama leen di sant seen pas pas moom foo ko takk paase na ko amuñ tànk ginnaaw moom ndax démb ñu ngi tëdd 3 heures man bu ma lay wax ne 4 heures laa tëdd démb 4 heures 4 heures 4 heures bi ñu paree añ yeeg ñu paree reer bi 3 heures la bi ñuy pare bi may pare man li may war a def 4 heures jot na te bi ma tëddee 4 heures 4 heures nga yeewaat. ndax 4 heures moins fekk nañ ñu commencé euh, 4 heures nang 4 heures 30 4 heures 40 fekk nañ fees nag yi ba pare kon ñu am positif lañ hmm? fii boo fi ñëw bi ñu fi ñëw 10 heures taal lañ ba russi ku fi ñëw rek fekk nga ñu taal ba russi kon loolu ñu am positif rek nga ko man ñooñu moom sant leen te yàlla na yàlla jàppale leen yokk leen ndaw yi fi nekk am nañ pas-pas parce que chaque jour ñu ngi bàyyi xel ñu ne ñu leen mag ñu ne ñi ñu mag ñu ngi leen di bàyyi xel comme ni ñu ndaw ñi bàyyi xel kon loolu sant nañ ca yàlla te di ñaanal mbooleem képp ku naan asadoon la ilaha la yàlla na ko yàlla ak sëñ Tuubaa teeru defal ko milliardaire sëñ Bamba mu def ko ci sëñ Bamba bañ koo def dara ci sëñ Bamba lu dul ci sëñ liggéeyal mboolem axlu murit gi nag barke sëñ Fall yàlla nañ ko yàlla defal defal ko mboolem jullit ak sama mbokki taalibe yi ñu bootu ñu ànd nag yàlla na leen yàlla ful nag bàyyi leen bañ seen waar leer nañ ba luñ bëgg am ko ci yoon sëñ Tuubaa barke sëriñ Tuubaa joxal sëñ naa Ousmane mu barkeeloo alhamdulillahil karim silmilan ala sihadi bi furudin